di dellusiwaat ci daaraay démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tay yi tabaarakallaahu waaxu nañ ba ci kër Cheikh Omarul Fuutiyu góor ak yàlla gu tedd googu tànnal ko ci daaraay tayam yi nga xam ne kenn xamut seen lim nim toll daara tabaarakallaahu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 وإلى عاد أخاهم هودا قال tabaarakallaahu jërëjëf Cheikh Abdou Salaam ci aayaat yu am solo yi ñu jàngal ak njàng mu rafet mi ngi ko jànge yal na yàlla wàccee barkeeb alquran ci sa kaw wàccee ko ci say waajur wàccee ko ci sëriñ daara bi nga xam ne moo sonnee ba nga man ayaat yu tedd yi ci sa dënn yàlla dëgg ci sax ci mbaaxam ak ngëneelam xaasal ci boroom kër gi nga xam ne moo ñu may occasion bi Sidi Mouhamadul Amin Niass waaye wàcce leer ak alquran ci mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi aayaat yim doon jàng suñu boroom subhanahu wa taala ngi ci nettali jaar-jaaru yonantu bu tedd yonantu bu sell di sayiduna Uhud yàlla yónni ko ca nitam ña di nite aad ña moom nga dégg alquran ne wa ila aadin axaahum hudan Uhud moomu boo ko seetee alquran dana ko tudd juróom-ñaari yoon ci téere bi ñoom nag ñi ngi dëkkee woon fale ñu tuddee laxqaaf ca beeñ ba actuellement mi ngi toll ci Oman ci réew Oman lay nekk ñu yàlla yónni ko ci ñoom ñi nekkoon ñu daan jaamu xërëm dañoo sampoon ay xërëm di ko jaamu xërëm ga ci gënoon a siiw mooy hëttaar mu ñëw tere leen ne bàyyi leen seen xiram yi ngeen di jaamu ñoom ñu ne ko lii lañ fekkoon suñ bàyyi duñ ko bàyyi mu sax fa diir bu yàgg ci woote taxul ñi ko gëm bari sax na ca diir bu yàgg di woote waaye daal dañuy wax ne daanaka téeméeri nit ak juróom fukk ñoo ko gëmoon ak la woote ba di yàgg lépp bim saxee ci woote ba mu yàgg lool nangu wuñ koo wuy si yàlla nattu leen lu mat ñetti at yàlla ji tawut te ay baykat lañ ba mbir ma mettee ñi tànn juróom-ñaar fukki nit ñun jàpp na ñoo gën a tedd ci seen xeet wa yónni leen màkka ndax jooju jamono ku am problème rek màkka ngay dem nga ñaan lu moo xam ngay jullit moo xam nga ngay yéeféer dañuy dem màkka nag di jaar ci kër seen menn mbokk moo xam ne ñoom ñooñu ñooy ay nijaayam ñu ko tuddee Muawiya ci këram lañu wàcc sax fa weer di naan sàngara xam naa moom nag ngan gi mujj na diis àttanatul leen juróom-ñaar fukki nit bu ñu la ganisee lu mat weer li nga amoon lépp da ko ci def ci toggal leen bi mbir mi méttee nag mu ñaari jéebéeram ne ko tagg wayal leen ma benn xasida boo xam ne day wane rek ne man yokkat naa sonn naa ci sama gan ñi dama bëgg ñu ñibbi ba ñu xëyee nag jàng xasida ba rek ñoom nag ñu comprendre rek takk seen bagage na ne nañ dem Makka bañ demee foofa nag di ñaan ki jiite seen délégation bi ndax booba loo ñaan rek yàlla nangu la ko ñu ne ko loo tànnal sa nit ñi fekk gis na ñetti niir mu ne tànnal naa leen niir wu ñuul wi ndax dafa jàpp ne niir wu ñuul wi moo ëpp ndox te li leen tax a dem màkk mooy ñaani ndox ndekki niir wu ñuul woowu alkande la ëmb waral nitam ya ndax bi mu ko ñaanee rek niir wa ñëw tiim leen ñoom ñëpp ñu mujj kontaan génn ca biti ne haada aaridun mumtiruna di de aw niir la woo xam ne dafa ñëw pour tawal ñëw waaye ba ñu demee ñoom ñëpp fekk tàngoor bi génne na leen ñoom ñëpp ba ñu dajee ci wenn xuur rek niir wa tàkk ci seen kaw ñu mujj dee loolu mooy fay ak képp koo xam ne da weddi ab yonantoob yàlla moom nag bi ko yàlla yónni booba ci àdduna bi buur bu ñu tuddee xibt ibnu misra ibnu baysur moo xilifoon àdduna bi yépp ku baax la woon mos na sujootal xiram yàlla saxal na ko ci nguur ñeenti téeméeri at ak juróom-ñett fukk moom booba moo xilifoon àdduna bi yépp nekk seen président léegi nag ni leen yàlla alagee ba mu ñëwee di leen woo ak liñ ko wuyu ak fiñ mu jëg seen alkande gi moom la yàlla yàllay nettali si nii nag ngeen dellu kon ci way laa aadin moo tax sama borom ne wa yónni nañ ilaa aadin ca niti aad ña yónni woon nañ ca axaahum seen mbokk ma huudan huud ba mu ñëwee xaala mu ne yaa qawmi yéen sama nit ñi ubudoo na ngeen wéetal laaha yàlla ci jaamu maa lakum ñeexalul leen min ilaahin ci jenn yàlla joxe yoo jaamu xayruhu judut moom afala na lu taa ngeen teet bokkaale xaala wax almala u mbooloo mu tedd ma mooy bi ma la waxoon démb mooy mbooloo mi fees bët na mooy na nga xam ne kafaroo weddi nañ min qawmi ca nitam ña luñ ko tontu mooy ne ko innaa naka ñun la naraaka gis nañ la fii safahatin nga nekk ci dese yow daal ñoruloo wa innaa ñun daal la naxu naka njortu nañ la sax minal kaasi bi na nga mokk ca nga bokk ca narkat ya dañuy jàpp ne yow li ngay wax du dëgg xaala mu tontu la ne yaa qawma yéen sama nit ñi lay sa biyadde di nekk ci man safahatun génn ak dese maa leen gën a ñor de walakin nii li fi nekk man rasulu ndaw laa min rabbil alamin tukkee ko ci yàllaay borom mbindee fi maa ngi tukkee ko ci yàlla moom moo ma yónni ñëw naa ubalixukum sax dàkk di leen jotal risaalaati rabbi leetari sama borom wa ana man mi naasixun aji laahi biir laa aminun di laahi biir bu xam ne ku maanaam aminun ku hóor lakum ñaal leen booba ñoom ci seen sharia tagg sa bopp daganoon na man ngaa baax wane ne man ku baax laa man ku sell laa man ku maandu laa mais sariya bi yonent bi nanguwul ngay tagg sa bopp moo tax yàlla di wax ci sariya bi ne falaatu yonent bi ne falaa la mu huwa a'lamu biman ittaqa bu kenn ci yéen di wane ne nii laa toll nii laa mel soo koy def sax ci moo nekk yaa fay gën a soof boo koy def ci say biir yi bokk ñépp lay jéppi li ngay def lu muy baax baax bis boo ci tafalee sa làmmiñ rek nit ñi jéppi la yàlla jéppi la waaye ñoom ci seen sariya bi nit ki nu mel rek mën na koo wax même loolu moo amoon ci sariya bi yonentu yàlla yuusufa daga noon na nga nga tagg sa bopp moo taxoon yuusufa taxaw imposé boppam ne ijaal nii ala xasaini l ardi ñu ne ko lu tax mu ne inni xafidun alim man ko jublaa bu ngeen ma joxe économie mi réew mi dërëm du ci manqué en même temps ku am maanaam ku am ku am xam-xam la ci mën a see ci mën a seere maanaam économie loolu daganul kenn di ko wax ci sariya ab sayyiduna muhammad sallallahu alayhi moo tax mu ne inni naasihun amin xam nga boo seetee li liñ jàng mu ci noox dafa ne wa ansaxu danaa laahi biir làkkum ñeel leen mu daario la indi te mu daario dafay tegtale al istimraariya moom kii indi ismu fail naasixun la wax moom amin lu ko waral wootee bi yonentu yàlla noox ba amutoon benn diir dafa doon woote guddi woote bëccëg bu tàngee bu seddee bët bu set mu woote moo tax sax waxal na ko bopp ne inni inni daawatu qawmi laylan wa naharan fa lam yazidhum duaaya illa firaran waaye moom mi nag wooteem bi boo gisee mu ne mu def naasixun léegi-léegi rek mu woote léeg léeg mu nekk ca tool ya léegi-léegi mu nekk ci soxlaay boppam bu bu sentiree mbir mi rek woote bu ko sentirul rek daal di bàyyi moo utilise euh, utiliser fi'lu mudaari kii moom mu utilise maanaam euh, ismu fa'il te ñoom ñaar emuñ dëgëre ci xam-xamu balaaga kon gis nga ko tamit nitu nitu yàlla ñi toujours dëgg ji ñuy indi ñi di weddi safaanab dëgg lañuy gis ki ñoom soo indee dëgg ci pénc ña koy njëkk a weddi mooy boroom juddu yu rëy ya ak boroom alal ya ak borom xam-xam ya ñun la yàlla di tuddee almalawu foo boo dëgg mu mës a ñëw ci pénc rek ñee koy weddi ndax dañoo wax ne lii bu doon dëgg warul ñoo teggi ñun kenn gën lu ñu kenn ëppul ñu xam-xam kenn ëppul ñu alal dëgg jii mën a nekk dëgg di ñu teggi jëm ci ñii mënta nekkati dëgg moo tax kon ñoom toujours dëgg ju ñëw ñoo koy njëkk a weddi ci waliyu yàlla yi dëgg ju ñëw ñoo koy njëkk a weddi ci yonantu yàlla yi mun waaw waaye foo fekk rek dëgg bu ñëwee ci pénc rek ñi gën a suufe ci waxin donte kenn suufewul ñi gën a néew alal gën a néew daraja gën a néewu métier ñoo ca njëkk a dugg loolu la yàlla lay dogal te ñooñu nag toujours ñoo gën a bëri ci pénc mi ñooñu ñaareel ku leen am rek am nga ñëpp te ñooy tamit nga gis ne ñoo gën a ñàkk solo ci gisin mais ñoo ñëkk ñoo ñoo ëpp solo ci mbindee fi ndax ñoo ëpp pas-pas moo tax boo gisee yonent bi diskuram ñaar la ci gënoon a bàyyi xel te ñaara ñi leen doon gannaawal te ñuy ñaar ñoo xam ne ku leen am am nga ñëpp donte ñoo gën a néew doole mooy xale ak jigéen xale ak jigéen ku leen am am nga am nga société bi yaakaar naa politiciens yi sax xam nañ ci dara nii ku xale yi ànd ak rek yaa yaa yaa yaa yaa moom réew mi waaye fii ñu toll tamit ku jigéen ñi ànd ak loo maanaam boo demee ci élection tamit yaay gañe moo tax yonent bi discours am bi yépp li ci ëpp dafa bàyyi xel lool xaleel discours bi da cee bàyyi xel lool jigéen discours am bi da cee bàyyi xel lool ñuñ moom ñi ñi nga xam ne dañoo néew doole moo tax sa dafa jëloon ñun moom ñi ñu gën a néew doole jegeel leen boppam jël ku mel ni Bilal bàyyi ko ba Éthiopie di suñ mbokkam nit ku ñuul mu ne ko def naa la ngay sama bëkk néeg lu may joxe ci alal sa loxo lay jaar jël ku mel ni Bilal di suñ mbokkam nit ku ñuul mu ne ko julli gu ma julli yaay noddu noddu ga mais en même temps yaay liqaam moo tax damay waxtu su ne yonent bi nit ku ñuul ma ko gënoon a jege ndax ilimaan ju ne na noddukat baa ko gën a jege ilimaan ju ne liqaamkat ki koy liqaamal moo ko gën a jege sëriñ bu nekk tamit bëkk néegam moo ko gën a jege kon yonentu bi nit ku ñuul la ko gënoon a jege ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam même bañ ko denkee sax nit ku ñuul la mujj ca bàmmeel ba ñépp a ñibbi maam xalifa ne ne ki mujj ca bàmmeel ba di raatale jël ndox di ko ca sotti mooy bilaal moo tax kon nit ñu ñuul ñuy mbir yi dana mujj ci ñoom de nañ gëm suñu bopp rek moo tax kon lii la wax moom xoolal loolu lañ ko tontu léegi nag mu ngi waxaat discours ba jeexagul mooy waxaat nii léegi mu continuer waaw ah ndax da ngeen di weddi wa ajibtum ngeen xéem an jaakum ngir lim leen dikkal fikrun ak waar min rabbikum ku bàyyi ko seen borom ala rajulin mu mu jaaree ko ci làmmeñu góor min minkum ku bokk ci yéen ñëw na li yunzirakum ngir na waar leen waskuro fàttaliku leen is jaxalakum bam leen defee moom yàlla xulafaa ngeen nekk ñu fi huutu ay nit min ba'di aadi min ba'di qawmin nuuhin gannaaw niti nuux ña ñoo fi nekkoon alku nañ yàlla def ngeen huutu leen wa zaadakum yàlla dool na leen fil xalqi ci bind bastatan ci kartan ñu rëy lañ fadkuru fàttaliku leen ala alaayi xéewale yàlla yi laallakum mbastale yéen tuflihuna ngeen texe mu ne waaw yéen ndax dangeen ngeen a yéemu bu yàlla yónnee ab yonuntu boo xam ne yéen ak moom a bokk benn famille ndax toujours wa ilaa aadin axaahum huudan mbokk ga ci xabilatu la yàlla dana tudd mbokk ci alquran ci juróom-benn yoon la mbokk ñëw ci alquran dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak ndey ak baay moom la alquran wax ca diggante ñaari doomi aadama ya ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin qatla axiihi jooja mbokk la ci wàllu ndey ak baay dana tudd mbokk ci alquran namm ci koo bokk ak baay man namm ci tamit koo bokk ak yaay même aaya ji sax ci suuratu nisaa yi mën naa yóbbuwaal tamit koo bokk ak ndey ak baay moom la wax ni fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi ku dee bàyyi fi ñaari mbokk yu mun di doon ci ndey ci bàyyi ci ndey ak baay loola day waral sa yaay toxaloo ci sulus jëm doon sudus ci ngay yëgee doolee mbokk mbokk mi moo toxal yaay ci sudus ci sulus kon mi ëmb matu nàmpal bi nga génnee àdduna bàyyi ñaari mbokk rek donte yéen bokk ndey ak yéen bokk baay mbaa ngeen bokk ndey ak baay rek dafay toxaloo ci sulus moom yaay jëm ci sulus kon foofu tudd na mbokk namm ci koo bokk ak ndey wala mu ci koo bokk ak ndey baay mbaa mu namm ci koo bokk ak baay aaya ji dugal na ñett yépp dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak famille famille rek ngeen bokk famille nag bu ñu ko daan wax léegi mooy ñi bokk sant rek njóobeen yépp mbokk lañ njaayeen yépp mbokk lañ ñeseen yépp mbokk lañ mbàkke mbàkke yépp ak siisi yépp mbokk lañ koo jox sant mu jox la sant rek bu ngeen waxantee donte yaa ngi kajoor mu nekk bawal mbaa saalum bu ngeen waxtaanee rek da ngeen am fu ngeen ko sant ci maam mbokk googu ci xabilatu moom la alquran ne wa ila aadin axaahum hudan wa ila samuda axaahum saalihan mbokk ga xabilatu rek la dana tudd mbokk tamit namm ci métier alquran jàpp na ne koo bokk ak rek sa mbokk la ndax la muy def danga ko mos a soxlaal dara baykat yépp mbokk lañ da ngeen mos a soxlawante àbbante sareet wala fas wala dogluwante ay jàtti commerçant yépp mbokk lañ da ngeen mos a soxlawante ci bagage mbaa ngeen soxlawante ci xaalis moodu mboodu yépp mbokk lañ moom nga dégg alquran ne inna haada axi lahu tisun wa tisuna naajatan wali naajatun waahida pourtant bokkuñ dara caawoo gi rek lañ bokk dañoo bokk di sàmm rek mu ne sama mbokk la kon foofu métier lañ bokk dana tudd mbokk tamit namm ci koo bokk ak bëgg-bëgg ñaareel ñi bokk bëgg-bëgg ci lu baax lépp mbokk lañ dañu xam fu ñu a dajee ñi bokk bëgg-bëgg sax ci lu bon ñépp mbokk lañ moom la alquran wa nasaxnaa maa fi sudurihim min xillin ixwaanan foofu bëgg-bëgg rek lañ bokk waaye dana tudd mbokk sax namm ci koo bokk ak diine boobu nag moo ëmb yépp moo gën a foor ci mbokk yépp moom la alquran ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum juróom-benni mbokk yi rek moo ne ci alquran ba alquran jeex dootu gisati mbokk lu dul juróom-benn yi juróom-benn yi nag daanaka moo liyee ñëpp rek kenn mënta génn ci ñii nii kon moom Huud dafa bokkoon la ñoom xabilatu rek kese loolu la bokk ak ñoom moo tax mu ne wa ilaa aadin axaahum huudan mu ne kon nag yàlla yónni koo xam ne seen mbokk la mu indil leen ab ab di leen waar pour ngeen bàyyi jaamu xiram jaamo ko wéetal ko te yéen a ngi nii am nañu fi nekkoon bokkaalee tax yàlla alag leen di nit yonantu yàlla noox ya yàlla alag leen ci ndox te li taxoon yàlla alag leen mooy weddi seen ab yonantu yéen ngeen naran ne continuer di may weddi kon fa yàlla jaaroon nag ñoom rek lay jaar ak yéen ñoom nag ñoo gënoon a rëy dañuy wax ni ki ci gënoon a tuuti ci ñoom juróom benn fukki meetar lay doon mooy juróom benn fukki xasabu ponkal lañ ki ci gën a rëy ci ñoom dana mat téeméeri xasam moo tax ñoom tey seen rëyaay ga yàggoon na ci tey ku toog fii bu toogoon nii rek ñu toogee ba muy tuut bopp bi dana xaw a laal toiture bi ngir ponkal bëtam yi day mel ni ay ay bëtu bët maanaam bët yi day mel ni kàmbu ngir ponkal nit ñu rëy lañu woon moo tax seen doolee taxoon dañ daan yett doj yi montagne yu mag yi comme doju ngor wi ñu ñëw yett ko ki seen doole dëkk ca bu sedd bi jotee foofu la ñuy dëkk bu tàngoor bi jotee ñu dem dëkk ci beeñ yi moo tax moom lay wax ne yan xitunal jibaala da nga ko jàng dana ko wax situit moo tax mu ne gis nga yàlla rëyalee seen ni ngeen rëyee kon nag li leen yàlla defal ci xéewal waaye waaye gëm leen ko ngeen dem wéetal ko xoolal liñ tontu nag xoolal discours yonentu yàlla hut bi ni mu rafetee xool liñ ko tontu xaaloo ñu ne ko ajjik tanaa andil ñu wala nga ne ko ajjik tanaa ndax danga ñëw dikkal li da ngir nañu wéetal laaxa yàlla wax dawoo mbir mu muy wét daal moom wa nasara ñi bàyyi maakaana la nekkoon yax yaxbudu daan ko jaamu abaa naa suñ bàyyi li suñ bàyyi doon jaamu muy abaa naa moom nga bëgg ñu bàyyi ko fàtti naa indi ñu maanaam bi maa du naa ci li nga xam ne yaa ngi ñu koy dëxal in kunta nekk nga mi ne na ci way dëggu ñi xoolal discours mi ni mu rafetee waaye lii lañ ko tontu ah, maanaam fexe bañ bàyyi suñu yoon mu bàyyi maanaam di la topp da ngaa bëgg tey ñu ñëw fi di wéetal yàlla moom kenn kese te liñ am ci ay soxla ak niñ bëree ay yàlla te suñ soxla yi fajuwuñ ndax bu ñu amee benn yàlla kon duñ gën a am problème loolu lañ gëm léegi nag ñu ne ko su fekkee da ngaa andi dara ci mbugal boo yeboo nga wàccee ko bu doon léegi daal bu fekkee yaay yàlla boo yeboo nga nga taw ay doj yow la ñuy xaar léegi nag doj yaa ngi ñëw xaala moom mu xad waqaa sa dëgg-dëgg tàbbi na aleykum seen kaw min rabbikum tukkee koo seen borom riju suñ mbugal wa xadabun ak sànji dal na ci seen kaw atu jaadi loolu nii ndax da ngeen dàggi santeeg man fii asmaayin ci ay tur yoo xam ne samaytumuha yéen a leen ko tuddee antum yéen ñii laa wax waa abaawukum ak seen bàyyi te maan na sa la wàcceewut laahu yàlla bihaa ci jaamu loolu mooy xiram yooyu ngeen tuddal tur min sultaanin ci benn lay fantasiru mu ngeen di ko loon inni naka man maakum ànd naag yéen minal munzarina bokk ci way mu ñëndiku ña xaar leen léegi léegi mbugalam yàlla mu ñëw dal ci seen kaw yéen lay xaar waaye yàlla mbugalee leen ñetti at tawut ñi sonn lool nekk ci coono lool ñi mujj tànn juróom-ñaar fukki nit ne dem leen màkka ngeen ñaanal ñu fa ndox ki jiite délégation ba bam ñaanee am lu ko woone ko danañ wane ñetti niir boo ci tànn rek ñu jox ko sa gaa yi moom boobu am na niir woo xam ne dafa xaw a son am niir woo xam ne dafa weex am niir woo xam ne dafa ñuul mu ne man tànn naa niir wu ñuul wi ndax jàpp naa ne moo ëpp ndox ndekki niir woowa ay bomb la ànd waaye ba niir wa ñëwee mu ñu nekk ci tàngoor wu metti mu jékki-jékki uppi ngelaw mu sedd ndekki da leen di dajale mu dajale leen ñoom ñëpp ñu dajee ci wenn xuur kenn manqué wut góor ak jigéen mag ñaak ndaw ña ñëpp ñu weddi yonentu yàlla Huud moom daal ba ñu gisee ba ba bañ demee ba ñëpp génn kenn desul rek niir wa tiim leen rek tàkk ci seen kaw ñu seey bañ ko gisee nag ñu ngi bëgg xam nga baykat boo xam ne yaa ngi jël sa gerte gi sotti maanaam ji ko ci euh, ji ko ci maanaam suusi mu am laaw ñaar fukki fan tawut fanweeri fan tawut yow moom bu tàngee sax dangay dangay da ngay kontaan da ngay jàpp ne bu tàngee nga ne léegi tey yàlla ji taw léeg sax da nga ciy baykat boo xam day toog day nekk ma ma ndax est-ce que yéen yëgu leen tàngoor fekk tàngut moom yaramam bi rek <laughs> mooy mooy mooy mooy yëg tàngoor mooy tàngoor bi ndax mi ngi yàkkamti gaaw yàlla ji taw ñoom nag bu nekkee ci tàngoor yu ñëpp kii mu gi mu indi ngelaw lu sedd ñëpp daw dajeef ni haatha aaridun mumtiruna yàlla ne bal huwa mastajaltum waaye nag dangeen a yàkkamti rek li ngeen mooy la ngeen doon yàkkamti waaye nag ba mu ñëwee ba ñu dajee ñoom ñëpp niir wa jékki-jékki rek tàkk ñoom ñëpp ñu doxee fa seey yonent yàlla huut booba moom ñu ko gëm ñëpp cent cinquante personnes lañ ñoom ñooña ci lañ dem gàddaay ba yegg place bu ñu tuddee xadaral mawt foofu lay mujj dëkk moom yonent yàlla huut ba mujj génnee fa àdduna am na ñu wax ne dafa ñibbi Palestine foofu lay mujj génnee àdduna ndax ñi booba jamono yonentu bu ne bu yàlla alagee sa nit ñi rek nga ñibbiwaat Palestine moo tax boo demee Palestine ñaareel nga fay fekk xabru yonentu yu bare bëree bëree bëree bëri kon noonu la def rek ba gaayam yi mu ci génn àdduna moom la wax si noonu moo tax yàlla ne fa an jay naahu musal nañ ko moom huut wala di naa ña nga xam ne maawoo ànd nañoo ak moom ñu nekk cent cinquante personne bi rahmatin ci yërmande mi naagu tukkee ko ci ñun wa naa dog nañ daabira lazina gannaaw gaa yi nga xam ne kazzabu dañ doon narloo bi ayat naa suñ kaawteef yi wa maa kaanu te nekkuñu woon mumin di way gëm maanaam daal yàllaay waxee nu ko neexee bu doon ci waxinu olof daal mooy yàlla ne man daal dog naa seen lu bon tey ma dog si lu bon nag bu la ko bu ko olof waxee rek <laughs> am na lu muy niru moo tax mu ne wa qataanaa daabira lazina kafaru maanaam dog naa seen gannaaw ya kon maanaam xalag naa leen rek amatuñ benn jeex jeexital amatuñ ngirte bu ma daggee seen gannaaw ya mooy ñoom mënatuñoo jurati kenn amatul kenn kuy mën a soqee ci ñoom jigéen ñaag góor ñaag ñépp laa alagandoor ñoom mënatuñoo jur kenn seen mbir jeex kon nag yonantu baa ngoog mooy la yonantu ci yonantu bu yàlla yoonal mooy huut première yonantu bu yàlla njëkk a yoonal mooy noox parce que aadama ci doomam yi rek lañ ko yónnee woon ñaareelu yonent bi yàlla yoonal mooy Huud moom nag arab la doon làkk arab la woon yonent yëpp dañuy wax ne ñett rek ba ñeent ñoo ci arab yonent yàlla Huud arab la woon yonent yàlla Saalihu arab la yonent yàlla Shuaybu arab la ak sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa yi ñoo doon làkk arab nga xam ne ay arab mu ñoom nag léegi kon alko nañ seen mbir jeex na gannaaw si gi nit ja ñëwaat ñooñe mu bàyyi fi ñoo jurante waat ba sëq muy cent cinquante personnes yooyu gëmoon ko ñoo ngeen da bañ demee ba ami doom doom yooyu ami doom ñi ami sët ami ay sët sëtaat ñi mujj delluwaat ci ak caay-caay weddi yàlla ba ñu weddee yàlla gannaaw biñ bëree yàlla yónniwaat beneen yonantu bu ñuy tuddee saalixu ci ñoom parce que booba ñooñ nga gis fa rek ñoo des ci àdduna bi jeex na ñooñu rek a fi ne léegi nag mu yónne yonentu yàlla saalihu saalihu wax naa la ko arab la ku rafeti wax la ba mu ñëwee mu sax ca nitam ña di leen woo jëme leen ci wéetal yàlla ak jaamu kook dimbandikoo ko waaye daal ñooña munuñ koo munuñ koo dégg saalixu nag yàlla nga ko yónni ci xabilatu bu ñuy tuddee samuda turu seen maam la ñii ne xur wañ dëkkoon ma tudd samud saa du ci arab mooy tekki ndox mu néew place bi ñu nekkoon dafa ndox ma ndox ma ci boppam bariwut ñu ngi fi ñu nekkoon mooy xijru lañ koy wax place bu ñu tuddee xijru ci xijaas la ci diggante maanaam Shaam lay nekk euh, soriwul sax soriwul sax ma dinatul a munawara yonentu bi keroog ba mu bàyyeekoo Tabuk bi ñib si romb na maanaam seen xuur wañ dëkkee woon muy wan saxaba ya ne leen fii ngeen di gis mooy montagne bii ngeen di gis gëlëm ak yonentu yàlla saalih ga fii la génneekoon ñu koy tuddee kaasibatu mu wan leen beneen montagne ne doomam ja fii la duggoon muy tudd xaaratu mu wan leen teen ba ne leen teen bii la daan gëlëm ak yonentu yàlla saalih gi ñëw di di ca naan fii place bii la daan goor ba fa yonentu bi duggee mu wax saxaaba yi de yokk leen seen xil daal di muur boppam ba ne nañ muuru joo wax leen ne leen jooy leen ku mënul jooy na jooy jooylu ndax place bi place am mbugal la bu leen rot ci teen bi bu leen jël ci ñax mi di ko jox seen mala yi bu leen fi jël dara place bi place bu yàlla rëbb la li waaxu ba ba ba ba ba génn ba ba génn ba génn ba génn place ba soriwul ci hijaas rek la nekk léegi nag euh, moom bi yàlla yónnee ko ci nit yi mbokkam yi muy samuda muy xabilatu ba wa ila samuda axaahum saalihan nitam ñi dañoo dëgër bopp ne ko yow mënuñu laa gëm tey am nañ feet soo bëggee ñu gëm ñu ñëwal nga fekke ci suñu feet gi ñu dem mu fekke ci seen feet ga ca àll ba ñu ne ko boo bëggee ñu gëm la montagne bi nga ñaan mu jur gëléem su fekkee sa borom la yónni te am na kartan na montagne bi jur gëléem xam nga kenn mësu koo gis laaj loo xam ne amalu la benn njariñ moom nag mu yëg ne yàlla lottut ci dara ndax moo ne inna laa ala kulli shay'in qadir man na lépp te moom nitam ñi gëm jaral na ko lu ne mu jàpp julli ñaari rakkaa tàllal loxoom ya ne yow yàlla mi nga xam ne sa kartan amul limit maa ngi lay ñaan montagne bi na ci génnee gëlëm ñu toog rek gis gi maanaam ñoom ñëpp dégg montagne ba na muy matoo comme jigéen guy am doom ponkalam gëlëm génne ca montagne ba gëneen mu ba pare mu ànd ak doom mu ne leen nag am ngeen problème naaqatallaahi wa suqyaaha mooy tëndiku leen gëlëm ak yàlla gi ak ndox ma muy naan fekk dëkk ba dañoo bëri ay juri kër ay ay ay ay jargalañ mu ne leen nag laha shirbun walakum shirbu yawmin maalum da ngeen ni aylante tey gëléem gi mooy aye lépp luy ndox ci dëkk bi ci teen bi moo koy naan bu subaa yéen ay aye gëléem bi du naan bu naanee tey jëlal suba bu naanee suba jëlal gannaaw suba noonu lañ doon doxalee waaye nag bis bu gëléem gi naanee ndox mi dana taxaw dana ñëw goor ci buntu këru kenn ku nekk ci dëkk bi ngeen ratt soow ba ne doy ba doyal nañ bu demaat ca geneen buntu kër ñi ratt soow bañ ne doyal nañ léegi nag am na fa ñaari jigéen ñu boot ñoo gënoon a ëpp ay juri kër ca dëkk ba kenn ki tudd Saduq kenn ki tudd Unaysatu te ñoom ñaar ak seeni jëkkër yi ñoo gënoon a bañ yonentu yàlla saalihu ñu ne ñun de suñ suñ gàtt yi tey amuñ luñ naan xale yu góor tamit dajee bëggoon a ataaya bu doon ci waxin wi amuñ ndox muñ muñ tegee ab baraada bi xam nga dañuy mer ndax bis boobu gëléem gee war a naan te bis bi gëléem gi war a naan meew rek nga mën a am mais doo am ndox kenn du sangu kenn du naan kenn du fóot mbir mi nag métti ci ñoom ñaari jigéen ñooñu Unaysatu ku rafet la mu jël ku ñuy tuddee Qudar doom la ju judduwut ci yoon mais saalif lañ ko doon askanee ndax ci ci buum ak sëy la juddu waaye yaayam moo jàppandal boppam tabaarakallaahu ci góor mu ànd ak moom ñu koy askanee baayam te fekk baayam juru ko léegi nag moom yàlla dogal na doom la ju judduwut ci yoon te soxna si yore gàttam yi dafa dafa ame ay jànq yu rafet moom mu bëgg leen mu ne ko boo bëggee sama jànq yi ma may la ci daal fokk nga rayal ma gëlëm ak yonentu yàlla saalihu gi mu dem mu nekk loolu kay du problème mu dem kompaloo ak juróom-ñeenti nit tisaatu rëhtin yufsiduna fil ard jooju nga dégg ñu dem def juróom-ñeenti nit ñooñu ñu foog ñu mujj kompaloo tërlu gëléem gi fu muy génnee rekk ñu gor tànk bi jàllal bi ku jam ko giléem ji ŋaax ñetti yoon door a dee ñi def délégation xam ne dañuy alku daw ci yonentu yàlla saalihu matoon nañ ñoom ñeenti junne nit ne yow yonentu yàlla saalihu ñun de gisuñ gaa yi ñoo rey sa giléem bi ñun nag dugguñ ci dara dañoo bëggoon nga ñaanal ñu yàlla buñ alku mu ne ah dem leen seeti doom ji rek su fekkee gis ngeen doom ji de mën naa ñaan ba ngeen sooyu waaye ba ñuy dem ba ngay jib kii rek ñu wër wër doom gi gisuñ ko ndax doom gi dafa daw mu duggaat ci xeer wu ñu tuddee xaaratu ñu ñëw ci moom nag ne ko ah doom ji de wër nañ ba sonn mais wax nañ ne dafa dugg ci benn montagne giléem gaa nga ne ngeen i séen léegi nag ndey saanam da da mu ne leen ah neexul ba neexul mais ñetti fan kon moo leen fi dese ñetti fan bu ñetti fan yi jeexee ngeen àll ko bisab àllarba lañ rey giléem ga mu ne nag àllarba ji bokkut ci bis bi ngeen di dee tamit bokkut ci kon yéen jàppale ne daal alxames la ñu commencé compter ajjuma samedi dimanche ngeen di dee xam nga loolu nag boo ko waxee ni fu mu jëm leen xaw ma kan mais dimanche ngeen di dee juróom-ñeent ñooñu nga xam ne ñoo ray gëléem ak yonentu yàlla saalihu gi ne waaw kon comme ñun dañuy dee rek moom nañ dem rayi ko moom bala ñoo dee ñoom tamit comme saalihu ju yonentu yàlla saalihu jullikati guddi la woon dafa yoroon jàkka ci biti dëkk bi bu bàyyee ba guddi rek mu dem ca jàkkam da ba bër set mu door a delluwaat ci këram noonu la daan jaamoo yàlla juróom-ñeent ñooñu nag nden ñun dañ tàggoo ci dëkk bi ne dañuy tukki rek buñ tàggoo ne dañuy tukki ba ñëpp xam ne tukki nañ ñu dem dugg ci benn xuntu bu ñu bàyyee ba fajar buy génn war a julli ji rek ñu agressé ko waaye ñoom juróom-ñeent ñooñu ñoom mujj ñu xaar ñetti fan yi ñoom ba ñu dugg ci biir xuntu ma rek la xuntu ma màbbu seen kaw ñi dee ñoom ñoom ñoo njëkk dee seen xeet wa léegi nag yonentu yàlla saalixu ne leen nag lii ga ci li ma leen wax bis bu njëkk bi muy alxemes képp ku gis sa xarxaramam morom xarxaram ba dafay soppeeku zone gaa yi daal ku gis sa xarxaram rek sa morom ne ko waaye yow tey sa xarxaram bi soppeeku na di gisoo ni mu soone mu ne ko ak yow di xanaa gisoo sa bopp ba ngoon jot ñaareelu fan ba mu ne ñaareelu fan ba kenn ku nekk xarxaramam day soppeeku xonq ku gis sa morom tamit deuxième jour bi muy ajjuma yow sa xar-xaram bi xonq na di mu ne ko ak yow xanaa gisoo sa bopp ba ngoon jot troisième jour bi nag muy samedi seen xar-xaram yi day ñuul kuk ñoom tamit ku gis sa morom wax ko loola dimanche nag ci yoor yor la mbugal mi ñëw ñoom xam na ne mbugal mi foog mu wàcc moo tax ñoom dañu def lu doy waar bi dimanche ci yoor yor rek lañ dem kenn ku nekk sangu sol yëre niiw dem ci àll ba di xaar. léegi léeg ñi téet ne waaw mbugal mi moom kaw lay bàyyee léegi-léegi ñi ñi ñi ñi maanaam ñi sëgg ñi ngi seen ñaari côté yi ban la ciy bàyyee koom waaye dimanche ci yoor yor daal bu doon léegi nga ne midi jëm maanaam 11h jëm midi rek la jibril xaacu leen ñoom ñëpp fa asbahu fi daarihim jaafimina ñëpp ñu xëy boofu ñëpp ñoom ñëpp alku noonu la seen alal ñoonu la seen alal ma defee ñoom ñëpp ñu mujj alku yonentu yàlla euh, yonentu yàlla saalihu nag takkaat ay bagaasam tuxu dem Palestine foofu lay nekk bu mu jigéennee fa àdduna kon yonentu yàlla saalihu moomu nag lay wax si nii mu yónnoon ko yëti nit yonentu yàlla samuda ya foofu ñu mujj lay wax si nii moo tax mu ne wax yónni nañ ba tey ilaa samuda jëm ci xabilatu samuda axaahum seen mbokk ma saalihan saalih la tudd ba mu ñëwee xaala mu ne yàqoo ma yéen sama nit ñi wax bu doo na ngeen jaamu wéetal ko laaxa yàlla maa lakum ñeex lu ne min ilaahin ci jenn yàlla joxe jaamu xayruhu judut moom xadd jaatkum sa dëgg-dëgg dikkal na leen bayyinatun layu leer naññ min rabbikum bàyyi ko seen borom lay wa nag mooy haadihi lii naaqatulaay gëléem ak yàlla la lakum ñeexal leen aayatan mbir mu nekk di kaawtéef fadaruha bàyyi leen ko taakulu muy lekk fii ardilaay ci suufu yàlla si wala tamusuha bu leen ko jotale bi suu in ci ñaaw ñaawtéef bu ko kenn dóor bu ko kenn dàq bu ko defee bu ngeen ko jotalee ñaaw téef rek fa yaxuzukum saw sa dana jàpp leen azabun bugal alimun may borom ak métital waskuro fàttaliku leen is jaalakum ba mu leen defee xulafaa ngi nekk ñu fi huutu min baadi aadin gannaaw niti haat ña wa bawa akum mu wàccee leen fil ardi ci suuf tattaxisuuna mbir moomu yéen a ngi jàpp min suholiha ca beeñ ba xusuran ay étage ngeen koy tabax wa tanxituuna yéen a ngi xett jibaala doj yéen a ngi koy xett buyootan ay néeg faskuro fàttaliku leen ala alaay xéewali yàlla yi wala taxaw bu leen yàq fil ard ci suuf mufsidina mbir mu ngeen jéggi dayoo ci yàq xam nga lii leer na mun leen moytandiku leen gërëm ak yàlla gi naaqatalaay wa suqyaaha ñi bañ fexe dem ba ray waxoon naa leen ko fi mu bokk ci rab yi dem aljana te li koy tax a dem aljana rek mooy sopp nit ku baax gëléem ak yonentu yàlla yonentu yàlla saalihu gi dana dem aljana ba tey xar moomu nga xam ne mooy xaram haabil ma ñi ñi ñotee woon ko yonent yàlla ismail alquran ne wa faddaynaahu bi zibin azim dana dem al aljana korondongo yonent yàlla suleymaan wa dana dem aljana waaye tamit xaj boobu toppoon asxaabul kahfi dana dem aljana usayru mbaamam ma dana dem aljana yaafur ni mbaamu sayyiduna muhammad ma dana dem aljana waaye mala yi buñ soppee nit ku baax tax ñu dem aljana kon yow nit ku baax kii sopp nit ñu baax ñi da nga dem aljana waaye nag sopp nag balaa jariñ day jur topp waaye sopp bu juru topp moom du jariñ dara koo sopp topp ko waaye boo ne maa ko sopp te doo ko topp bokk leen yoon ñu bokkul yoon nag du gisante ji ëllëg kon nag koo soppati topp ko ci la muy digle topp ko tamit ci la muy tere léegi nag lii la leen wax ci discours bi xool li ko gaa yi tontu xaala mbooloo xaala wax na almalaw mbooloo ma ne allazina mooy ña nga xam ne istakbaru rëylu nañ min xawmi ca nitam ña li la seen ñeel ñi nga xam ne istudifu ñoom dañ leen a lompale def dañu leen di néewal doole li man amana ñi nga xam ne gëm nañ minum ca ñoom ne waaw yéen ataalamuna ndax da ngeen a xam ne ana saaliha naka saalih mursalun kun yónni la mi rabbi waaye ko seen borom ndax yéen gëm ngeen loolu xaaloo ñu néew doole ngeen inaa naka ñun bi maa ci la nga xam ne ursila yónneef na bihi moom moom leen way gëm lañ ko xaala wax la si na nga xam ne istakbaroo dañoo rëylu ne inaa naka ñun bi la ci la nga xam ne amantum gëm ngeen bihi ca moom kaafiruna way weddi lañ ko xam nga dañuy kokkali ñu néew doole ña gëm ñi am doole ñi weddi dañoo ñëw bëgg yàq seen pas-pas ñu leen waaw yéen ngóor si ñuy wax saalihu ne yàllaa ko yónnee est-ce que yéen gëm ngeen ko ñu ne ko waaw waaw gëm nañ ko lool ñoom ñu ne leen nag ñun de kii ngeen gëm ñun de weddi nañ ko yow kay su fekkee gëmuloo te ngaa jàpp sa ñàmb mais ñàkk a maandu mi ngi nekk ci jéem ak agere si nekk ci pas-pasam te loolu dafa xew yow boo gëmul kay maandu rek waaye yow gëmuloo fekk nit ñi lu ñu gëm laaw nga ne du ngeen ko fi gëmee loo xam ci lu bon di ko ca wax loo xam ci lu ñaaw di ko ca wax loo xamul sax te loolu nekku ca nga koy sos yow moomu kenn gënul laa bon te lu yàqu ci pénc ñu mel noonu ñoo ko yàq kon loolu du fi yàgg la fekk nit ki gëm au lieu nga bàyyi ko ci nga ñëw ne yow li nga gëm du dara moo tax ñoom dañ leen waaw yéen ndax gëm ngeen ñu ne ko ñun gëm nañ ko ñu ne leen ñun nag li ngeen gëm ñun dañ koo weddi buñ ca xemoon maandu doy na waaye xoolal ñu mujj nag dem di déemal loj gëléem gi boo gisee yàlla ne fa xaqaru te waxut xudar mi ko rey rek wax ne xeet wi yépp ndax ñu reyut tamit dañ cee d'accord ndax fu ñu defee lu bon nga noppi ca yaag ñoom a yem moo tax yàlla ba mu ñëwee dafa dafa adressé maanaam jëf ju jëpp bon ji ñoom ñëpp ne fa xaqaru kenn génnu ca moo tax ba mbugal may ñëw tamit kenn génnu ca moo tax mu ne fa xaqaru loj nañ a naaqata gëléemam ga waxataw jéggi nañ dayo xan am rabbihim wali seen mbiram borom waqaaloo ñu ne yaa saalihu yow saalihu itinaa indi ñu bi maa naa ci li ñu dëxal in kunta nekk nga minal muslimin bokk ci ñu yónni ña mu ne fa aqasathum jot na leen arrajfatu ak yëngatu fa asbahoo mujj nañ jaasimina di way bóof fii diyaarihim seen kër ya fa tawalaa dëddu na anhu walis leen wa qaala mu ne yaa qawmi yéen sama nit ñi laqad ablaghtukum walaay sa dëgg-dëgg jotal naa leen risaalati rabbi leetari sama borom wa nasaxtu laahi biir naa làkkum ñeexal leen walakin li fi nekk yéen laa tuhibbuna bëggu leen naasixiina laahikat yi biir yi ñii laahi biir yéen bëggu leen leen xam nga am na nit ñoo xam ne bëgguñ dëgg boo leen laahi biir rek ñàkk leen nit ñi ji jamono ku leen jay rek lañ bëgg koo ci jay mu nekk sa xarit ku ci nekkul dëgg boo ko xooyee sax mu mere la dafay fan koo xañaane lim ne tax daal soo bëggee noppalu daal boo xeboo di jay nit ñi rek soo leen mënta jay rek nga maandu ci seen mbir waaye jii jamono ku manta jay nit ñi doo mën a nekk ñoom doo bëri xarit ndax li ñuy wax lu ci bëri dara teguwut ci yoon li ñuy jëf lu ci bëri dara duwut ci dëgg waaye koo ci wax lu tàngay def nii nangam rek mu ne yow sama noon nga kon loolu tamit lu fi yàgg la moo tax mu ne wa nasaxtu lakum walakin laa tuhibbuna an-naasihiina moo tax nag ba mbër ma ñëwee rek ñoom ñëpp ñu xam ne caaxaan fàcc na ñi dem ca àll ba gannaaw bi ñu sangoo sàng seen bopp gas yi pax di xaar léeg-léeg ñi téen léeg-léeg ñi sëgg seet fa mbugal may ñëwee waaye ba mu ñëwee rek dal nañ ci seen kaw ñoom ñëpp ñu àll ko xam naa xaw nañoo niroog góor ak siisi siise ga yàlla da ko nattu jaan ji màtt ko ci bopp rek mu laxasoo sàngaay ga rek daw foo jëm mu ne ci armeel ya man kay kenn du ma yóbbu maa yóbbu sama bopp ñu ne ko lu tax mu ne ah jaan ku màtt la ñuy njëkk laaj ndax jaan ja xéegut ndax bu xéegee rek bu dagar ja xéegee mu dee man nag mu màtt na ci bopp kenn du laaj ndax xéeg na am xéegut man kay bu ngeen nee ba fekk ma ci armeel ya waaye ñoom tamit dañoo toog di seen armeel ya léegi nag mi ngi tudd beneen yonantu mooy luut yonantu yàlla luut luut mi nag yonantu yàlla ibrahima moo koy jiitu waaye ñoom ñaar fekkante nañ ci jamono ndax léegi-léegi yàlla ni ñaari yonantu ci benn jamono waaye su boobaa nag duñ bokk benn place mi ngi mel ni ke kii nekk Kajoor kenn ki nekk Saalum noonu la ko daan defee waaye duñ bokk mukk ñoom benn benn dëkk ñoom ñaari ñëpp nekk ab yonantu nekk ci benn dëkk mukk loolu moom mos am luut mii nag doomi mbokk yonantu yàlla Ibrahima la mbokkam Ibrahima moo ko moo ko jur moom yàlla dafa dogal baayam dafa gaaw a génn àdduna bi baayam génnee àdduna Ibrahima mii di magu baayam moo ko yar mu nekk xale bu baax déggal lool Ibrahima nangul ko lool Ibrahima tamit sopp ko lool moo tax sax ñu koy tuddee luut mu ngi baat bi mu ngi bàyyi ko ci laata maanaam mooy lu taq alwatu arab da koy wax bi xal bi yi maanaam diw daal dafa sax ci sama xol Ibrahima bi ko yar dafa mujj bëgg koo bëgg bëgg bëgg ba mujj mel ni luut dafa mujj sax ci xolu yonentu yàlla Ibrahima comme ñoom ñaar ñëpp ay ay jargalañ yore ay ay ay gàtt di sàmm Ibrahima ne ko maag yow duñ mën a bokk benn dëkk booba yónneeguñ luut dangay yore ay jur ma yore ay jur kon yow dangay dem nga dëkk fale ca sa duum foofa juróomi dëkk la actuellement ci àdduna bi mu ngi toll ci ordon ci réewu ordon la nekk mu ne ko yow demal nga dëkki foofa juróomi dëkk nga fa man ma nekk Palestine ci Saam Ibrahima moom nekkee Palestine ak ay gàttam di sàmm kii dem nekkee fële ca ordon foofa tamit juróomi dëkk lañ waaye dëkk ya dafa naata naat bari ñax bari ndox dëkk yu naat la woon yonentu yàlla luut nekk fa yóbbu fa gàttam ya di sàmm mujj gi nag yàlla wax yu ko def ko bu yonentu ne ko yónni naa la ci juróomi dëkk yi yaay seen yonentu booba yonentu yàlla Ibrahima a ngi dund ñu bokk ñoom ñaar jamono léegi nag juróomi dëkk ya yàlla nattoo leen jàngoro ju bon li ñuy tuddee góor jigéen ñoo ko njëkk def ci kaw suuf waaye ki ki leen wan mbiram góor jigéen mooy iblis iblis mooy ki njëkk a nekk góor jigéen ci kaw suuf moo tax saa yoo nekkee góor jigéen rek iblis ngay toppandoo moo ko njëkk a doon iblis dafa ñëw ca dëkk ba soppeeku meloo waxambaane ndax waxoon naal ne moom bu demee ba màgget rek yàlla da koy tëggaat mu nekkaat waxambaane noonu lay def nag ba ba ñuy walee bufta ba pour ñëpp war a dee mu ñëw soppeeku melaw waxambaane wàcce tubayam ñoo ñooy njëkk a wàccee tubay ci xaw xeet wi léegi nag jàppandal boppam ci góor yi waa dëkk ba ñu koy sëy te iblis la njëkk a sëy ci góor jigéen léegi nag dëkk ba bi mu naatee mu bëri ay moodu moodu boo ko doon wax ci ji jamono mooy ñoo xam ne dañuy dem di màngaani di dem ca dëkk ba pour di fa liggéey pour bëgg luñ am iblis tamit ne leen bu ngeen bëggee yaatu ca dëkk ba rek yéen ñi nekk ay doxandéem jàppandal leen seen bopp ci waa dëkk ba ñi sëy yéen foofu la commencé moo tax ji nga dara beesul mu ne leen bu ngeen demee rek nangu ña dëkk ca dëkk ba sëy leen da ngeen am nationalité am këyit en même temps da am liggéey dangeen ngeen yaatu ca dëkk ba te xam nga tey léegi léeg nga gis ko ko nangu nekk tumuranke bu ko demee rek ñu defal ko këyit kon dara beesul dara beesul yàlla day day day day day tëggaat rek léegi nag ñoom moo tax ñoom seen góor jigéen ñi nekkul na ñoom ñooy sëy ci seen biir duñ nangoo sëy ci seen biir doxandéem rek la ñuy sëy doxandéem ya nag ñooy nekk jabar ya ña dëkk ja dëkk ba nekk jëkkër ya moo tax nga dégg ñu naan axriju maanaam axriju ala lootin min xaryatikum ndax ñoom ñoo moom dëkk ba ñii nekk ay doxandéem na buñ bañee nekk góor jigéen rek génne leen leen dëkk bi ndax dëkkuñ fa ay doxandéem lañ léegi nag moo tax lu maanaam iblis moo leen njëkk a wan phénomène góor jigéen ñu mujj nag dëkk ba nekk ci ak góor jigéen te loolu mosta am maa sabaqakum biha min ahadin min al alamin min al alamina moom jinne yi bokk nañ jinne yi ku ci mos nekk góor jigéen mosta am min al alamina mala yi dugg nañ ci mala yi góor jigéen mosta am mala yi dugg nañ ci ak njanaaw yi moo sax sax gannaaw si gi góor jigéen yi am ci mala yi mi ngi nekk gannaaw niti luut ña mais jamono niti luut ña sax loolu amutoon mu nekk jikko joo xam ne mbooleem mbindee fi yàlla bind yépp ko séexlu ba mooy ñaar ñaari mbaam yi rek ñoo nekk góor jigéen mooy mbaam xuux ak mbaam sëf léegi-léeg nga gis mbaam xuux bu góor bi tëb moromam léegi-léeg nga gis mbaam kër bu góor bi di tëb moromam boo demee ci euh, tafsir ibnul arab loolu la wax mu ne moom kenn ñaari ñaari mala yi kese ñoo nekk góor jigéen ci mbindeefu yàlla mais gis nga xaj li muy bon bon sax séexlu na ko golo li muy saay saay saay saay golo góor jigéen amut mu ci ñaar ñii la njëkkee léegi nag juróomi dëkk yooyu bañ nekkee góor jigéen yàlla bëgg leen a alak bi mu leen namee alak dafa yebal jibril mu ànd ak délégation ba ñuy dem dañoo sol mbubbam nit rafet lool jaar ci ibrahima xamal ko ne ko sama borom ne dina la may doom am nga téeméeri at ak ñaar fukki mee da nga am doom ibrahima ba dañ gisee nit la leen tegoon dem jël benn xar rek lakk ko wàjji ko jox leen ko waaye ba mu ñëwee gisuñu lekk lekkuñ dara mu ne maa lakum laa taakulu yéen lu leen teree lekk ci dañ ko xamal ne ko ñun ay malaaka lañ li ñuy ñëw ci yow moo tax ñu sol mbubam nit dañ lay bëggal ne sa borom nee na da nga dana la may doom fa basharnaahu bi ishaqa wa min waraay ishaqa yaqub waaye na ko ne ko buñ bàyyeekoo ci yow sa luut lañ jëm sa nit yi sa sa doomi mbokk ma la ñuy alage mu ne leen naka ngeen di alagee ñoo xam ne presque lu mat cent personne gëm nañ mu ne ko noo matul loolu mu ne ko fanweer gëm nañ mu ne ko matul loolu mu ne ko fukk gëm nañ mu ne ko matul loolu kum lim mu ne ko gëm mu ne lu mu joxe ci lim rek mu ne ko gëmul mu ne matul loolu mu ne ko mais luut ma fa mu ne ko ñu ne xam nañ ne inna fiihaa luutun ñoo la ñun xam nañ ne maanaam luut ma nga fa sanu najjiyannahu danañ ko musal wa ahlahu booba luut na ñaar rek ko gëm mooy ñaari doomu jigéen kese même soxnaam sax moo jiite woon lu jigéen ña soxnaam dafa daan wax góor jigéen ya fa nekk ne bu ngeen gisee ma taal safara ci guddi xam leen ne luut am na ay gani doxandéem te ñoom doxandéem yi la wax naa la ko te ko doxandéem yëpp bu ñëwee foog ñu jaar ci kër ilimaan ji su ma taalee safara ngeen gis maanaam lumière bi ci guddi gi rek ñëw leen ay doxandéem ñëw nañu wàcc ci dëkk bi ngeen sëy leen su fekkee ne bëccëg la siiñ bi mooy saxaar bu fekkee bëccëg la ngeen gis ma def ma ngeen gis saxaar bi sama kër rek gaaw leen ñëw xam ne am nañ arrivage bu bees léegi nag waaye keroog arrivage bee baaxul ci ñoom de ñu nekk juróom-ñaar nekk waxambaane yu rafet wàcc ci dëkk ba mu def siiñam bi rek gaa yee daw mel ni ku tàqalikook seen sago ba ñu leen gisee seen taar ba xale yu góor yi mënu ñoo téye seen bopp lu ne leen waaw haawulaay banaati hunna atharu lakum fii wala tuxsooni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid gaa yi ne ko maa naa fii banaatika min xaq ñun soxlawuñ sa doom yi góor jigéen lañ soxla mu ne du ñëw ma may leen sama doom yu jigéen ñi ñii ne jigéen ñi xeet wala ca nam mais li gën a wér doomam yu jigéen li lañ ndax jigéen ñi xeetam ko woon ñaari doom rek nga ñoo ko gëmoon ñu ne ko ñun soxlawuñ jigéen soxla góor lañ soxla mu ne waa kon baax na mu jigi ci la ko jibril ne ko xam naa ne xat nga lool sonn kaay ma gis la ñun ay malaaka lañ duñ nit li ñuy ñëw ci yow moo tax ñu sol jëmmi nit dañoo ñëw ngir alak sa xeet wi kañ nga leen di alak mu ne ko suba mu ne ko te moo nekk tey tey nga def ko tey waaye ñun dañoo sonn mu ne ko déere alay sa subxu bi xarib suba yàggul bàyyil ba suba rek waaye nag fasri bi ahlika bi qitain min al layli wala yaltafit minkum ahad condition bi mooy ne yow bul fanaan ci dëkk bi bu guddi gotee rek génnal dëkk bi rañaanal waaye nag booy génn yaag sa ñaari gaa yi sa ñaari doom yi bu kenn gestu ku gestu rek message bi dal sa kaw loolu mooy condition bi xamoon na ne buy dem fokk soxnaam topp ko te soxnaam mënul remplir condition yi mooy faw mu gestu bu gestoo rek xeeroo fekk ko fa waaye ñee ñoom nit ko am itte gëm yàlla li ci kanamam lay xool mee du xool li ci gannaawam moo tax ñee duñ gestu mukk mais xam na ni kii mooy gestu ba ñu déparé rek soxna si topp leen mënuñ koo wañ waaye moom ba mu déparé dem ba ci kanam rek mu gestu ba muy gestu rek la ko fa benn xeer fekk maasale ko xeer safara la bàyyee ko léegi nag bi bi yonent yàlla lu demee ba génn juróomi dëkkam yi ci la jibril ñëw rek jël laafam bi dugal ko ci biir juróomi dëkk yi yëkkati leen ba seen ganaar yi bu ñu sabee waa asamaan dégg ko mu déqarti ko la féetee woon kaw féetee suuf moom la alquraan fa lammaa jaa amrunaa ja'alnaa aaliyahaa saafilahaa ña tukki woon nag génn juróomi dëkk yi jamono jooja ñoo moom wa amtarnaa alayhim hijaaratan min sijiil ñooñu moom fu waay nekk sa marché ba nga nekk sa xeer moo la fay fekk rek comme ci góor jigéen gi rek mu marché la la kon loolu la demee moom nag seen place ba li gën a wér boo demee ki ci tafsirul maraax yi mu ne dafa effacé wu ci kartu ci ci maanaam ci ci géographe taarix mooy seen place ba kenn mëntul koo wane fi góor jigéen ñi dëkkoon amatul ci àdduna bi yàlla far na ko place ba kon ni leen yàlla faree ni la faraaree seen place ba parce que boo demee tey fi nit yi yonentu yàlla noox ya dëkkoon mën nañ koo wane fi nit yi yonentu yàlla saalih ya dëkkoon mën nañ koo wane fi nit yi yonentu yàlla huud ya dëkkoon mën nañ koo wane mais ñoom fi ñu dëkkoon faar na ci taarix amatut kon nga xam ne yàlla bañ góor jigéen mooy da leen fee far ñoom ñëpp bañ jeex takk seen suuf yañ dëkkee woon yàlla far ko ba mu jeex takk ci kaw suuf wax jooju moo gën a wér tafsirul maraaqi laa gis ki tafsir yëpp mu indi wax amatul ci kaw suuf mu des nag léegi góor jigéen foofu la njëkk a amee mu jigi góor jigéen fenomen bi nëbbu xaat Ibrahima ñëw ba jeexal amut yonentu yàlla Moussa ñëw ba jeexal amut yonentu yàlla Haaruna ak moom jeexal amut ba ci yonentu yàlla Suleymaan amut Daawuda yonentu yàlla Isa ñëw na ba jeexal phénomène góor jigéen amut mu ngi mujj feeñee ci xeetu Sayyiduna Muhammad yonent bi moom xamoon na ne dana feeñ ci xeetam wi waaye diirab lim fi ne amutoon kaawu góor jigéen yonentu mosta am kaawu góor jigéen waaye nag waxoon na ne dana am waxoon na ne inna axwafa maa axaafu ala ummati amala qawmi lut mu ne li ma gën a ragal ci sama xeet wi mooy ak góor jigéen waxaat tamit ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulul faaila wal mafula bi xadis boobu mbooleem juróomi téere xadis yi gën a wér ñépp ko indi ba mooy imaamu nasaa yi donte am na ñu wax ne xadis ba xadisun xasanun la am nañu koy jéem a jàpp waaye boo demee Buxaari yu indi na ko Muslim indi na ko Abu Daawuda indi na ko Tirmisi yu indi na ko Ibnu Maajaha indi na ko nasaa yi rek moo ko indi wut ci benn ci fekk xadis boobu donte nag am nañu jéem a jam xadis boobu léegi nag ci jamonoy ab Seydina Aboubacar mi premier xila xalifaab yonantu bi toog ci xilaafaam gi la phénomène góor jigéen njëkk a feeñ ki ko njëkk don doon jàpp ko mooy fajaatu la tudd fi mu ko jàppee yàggul dara Xaalid ibnu Walid fi ko Aboubacar nome moom tamit mu jàpp fa ay góor jigéen léegi Xaalid bind Seydunaa Aboubacar leetar ne ko dañ fee jàpp ay góor jigéen ma laaj nuñ leen war a mbugalee ci la Aboubacar dagale kibaaru saxaaba yi Seydunaa Ali wa nga ca Seydunaa Omar a nga ca Seydunaa Ousmane ak kàngaam yu mel noona mu ne leen waaw yonentu de waxoon na dañ leen rey waaye nag moom mosuñu gis mu rey kenn ci góor jigéen ak rey dafa bari façon bañ nu ñu leen war a reyee Seyduna Ali ne ko man daal li ma gis ki ñoom nañ leen rey ci jaasi ba pare lakk leen fatwaawu Seyduna Ali ci góor jigéen mooy lakk Ali moo ko wax Aboubacar ne ko yow laa ànd ak ñoom ñaar nag dañoo def iqtibaas ci mafhumul quran ci mëntoo ko aaya ji fi yàlla wax ne wa amtarna alayhim hijaratan si sijilin comme dafa leen a yónnee woon doj yoo xam ne safara bàyyee ko moo tax du sayyiduna Aliyu gendee ko ne kon lakk rek ci alquran la ko jële mu laaj du sayyiduna Omar sayyiduna Ousmane ñoom ñaar ñu ne ñun d'accord ñu lakk mais liñ d'accord mooy nañu seet montagne bi gën a rëy ci Makka walla bi gën a rëy fii ñu nekk muy ma Madina wala étage ñu yëgal leen ci kaw ba max leen ñi daanu ñoom tamit dañoo def ci mafhoomu mantuux aaya ji lañ jële mooy falammaa jaa amrunaa naa aaliyahaa saafilahaa comme yàlla dafa leen yëkkati woon bañ dem ca ba tiim asamaan mu door leen a dipparti moo tax ñoom ñu ne kon nañ leen teg ci montagne bi gën a kawe ba max kon ñaari att yi la ci saxaaba yi jëloon gis-gisu naa Omar ak Seydunaa Ousmane mooy ba max leen xam naa bu doon fii daal bu ñu leen jàppee man na leen yóbbu immeuble Kébé nga def rek ba ñu daanu ci tali bi loolu mooy gis ñu mooy ñaari gis mais boo tey Seydina Ali moom dañ leen lakk boo jëlee imaamu Malik moom dafa ne suñ leen jàppee sangewu nañ sangewuwuñ nañ leen jami doj bañ dee imaamu Shafii yu mu nañ leen atte atteeb ku njaalo su fekkee sange maanaam sangewu nañ nañ leen jami doj buñ sangewut ñu dóor leen téeméeri yar Abu Hanifa moo gën a oyofal atte ci góor jigéen dafa ne kenn du leen rey kenn du leen lakk kenn du leen jami doj dañ leen a war a tëj kaso boole kook dóor leen bañ tuub moom moom atteem bi moo gën a arrangé góor jigéen ñi Abu Hanifa rek a wax loolu nag waaye ñu ci des ñëpp amul kenn ko wax loolu kon lii mooy atte bi wax naa la ko ci saxaaba yi wax naa la ko ci masaahib yi kon lii mooy seen atte ñoom ñooñu léegi nag góor jigéen a ngoog moom lay wax si nii ñoom la yàlla yónni woon ci luut delluwaat leen ci téere bi wala luutaan moo tax mu ne wax yónni woon nañ luutan luut ba mu ñëwee is qaala ba mu waxee li xaw mee ñeel nitam ña ne ataatu na ndax yéen da ngeen dikkal alfahisata ak góor jigéen goo xam ne maa sabaqakum musu leen a jiitu bi haa ca moom min ahadin ci kenn min al alamina ci mbindeef yi li ngeen def kenn musu koo def yéen a def njomb yéen a def njomb te gu rëy góor jigéen mu ne ko amul kenn ku ko mos a def du ci jinne yi tabaarakallaahu du ci malaaka yi du ci mala yi yéen daal phénomène la boo xam ne yéen ko fi jëkk a mosta am ci fenn lii la leen wax maa sabaqakum biha min ahadin min al alamin léegi nag lañuy def moom lay wax ne léegi mu ne leen ataatuna ndax yéen da yi di dikkal alfahishata ak góor jigéen maa sabaqakum mosu leen a jiitu biha ca moom min ahadin ci kenn min al alamina ci mbindeef fii innakum naka yéen la taatu na da ngeen dikkal rijaala góor ñi shahwatan ci bànneex min doon yi bàyyi fi jigéen ñi bal li fi nekk antum yéen xawmun aw nit ngeen ñoo xam ne musrifu nañu jéggi dayo ngeen ci bàyyi li leen dagan jëm ci li leen xaraam wa maa kaana nekkut jawaaba qawmi di tontul nitam ña illaa an qaalu lu ñuy wax ne axrijoohum génnee leen leen min qaryatikum ci seen dëkk bi innahum naka ñoom unaasun aw nit lañ yatataharuuna yoo xam ne dañuy jéem a baax baaxlu mooy ña bañ ña bañ a ña bañ a def góor jigéen séexlu ko ndax ñoom ñoo jàpp ne ak góor jigéen dara gënu koo salte ndax yow koy sëyeeg nga ne sa moroomam góor fooy sëyeeg moom nga ne fi muy génnee cabinet xam nga loolu salte na salte googu nag moo tax ñoom ñi ko bañ ñu ne yetta tëxaru na ñoom dañuy jéem a baax baaxlu ñii ji nga tamit seen discours ñoom toujours góor jigéen ñi ñu war a xatal toujours ñoom ñooy xatal nit ñi moo tax ñoom tamit gis nga ba leen gaa yi bëggee xatal ñu leen axrijuhum na ngeen leen génne min xaryatikum nañ génn suñ dëkk bi rek innahum unaasun yatataharuuna wax naa la atte bi ci sariya mu des bàkkaar bi dañuy wax ne ku jël xale bu góor rek fóon ko fóonu bànneexu ci moom walla nga ànd ak moom bàkkaar ba mu ngi toll ni kenn nit ku sëy ak yaayam juróom-ñaar fukki yoon nit ku sëy ak yaayam benn yoon bàkkaar ba mooy tolloog ku jël janq nga njaaloog moom juróom-ñaar fukki yoon njaaloog jànq njaaloo ak janq moo gën a garaaw njaaloog jekk ndax janq bi xamul dara nga njaaloog moom ba yóbbu ko ci yoonu bon wi ubbi nga porte bon boo xam ne xamoo kañ lay tëju moo tax benn njaaloog jànq dafay taxaw taxawaayu juróom-ñaar fukki njaaloog jekk kon loolu rek xanaa war na tax ñi bàyyi góor jigéen bàkkaar bu toll noonu benn ànd ci góor jigéen tolloo ko tolloog ku sëy ak yaayam juróom-ñaar fukki yoon boo demee ci docteur Wasfiyu ci téere bu ñu tuddee alquraan wa tibb jàngal na ci lu bari mu ne góor jigéen ku koy def bala ngaa dee danga nga amee feebaru rein yàlla dana la nattoo nga am feebaru rein te loolu xam nga feebar bu doy waar la mu ne tamit kuy def góor jigéen bala ngaa dee boo tuubut danga nga amee problème mu feebaru bopp moo góor jigéen ñi ci kenn normalul ci mu ne koo ci gis balaa dee dana am feebaru bopp dof mu ne tamit moo gën a gaaw ci yàq jikko góor jigéen amul kenn ku mën a dëkk ak moom du yaayam du baayam du ay mbokkam dafay dafa nekk feebar bu yàq jikko mu ne tamit ku koy def man ngaa dem a dem ba sa mën niw day mujj yàqu même boo àndoon ak jigéen nga am ak moom rapport sa dootoo amati doom mu ne tamit kuy def góor jigéen bu la yàlla dimbaliwut lool bala ngaa dee da nga amee feebaru sida moo tax téeméer yoo gis ñu déclaré ne dañoo dañoo am sida ñaareel juróom-ñaar fukk yépp ay góor jigéen lañ boo demee ci téere bu ñu tuddee alquran wa wa tibb docteur Mouhamad Wasfiyu tudd na ci jàngoro yu garaaw yu kenn mënta tudd ci ji jamono yoo xam ne tey bu ko góor jigéen ñëpp jàngoon rek dañ bàyyi góor jigéen kon nag wax na leen góor jigéen ji léegi nag déglul la ko gaa yi tontu moo tax mu ne wamaa kaana nekkut jawaaba xaw mi di tontal nitam ña mooy xabari kaana ji illaa an lu dul ñuy wax ne axrijoohum génnee leen leen ñu dul góor jigéen te nanguwuñ ko min xaritikum seen dëkk bi innahum naka ñoom unaasun aw nit lañ yatataharuna ñuy jéem a baax baaxlu fa anjaynahu musal nañ luut wa ahluhu ak ñoñam ña illa imraatuhu lu dul jabaram ja kaanat mujj na minal xaabirina bokk ca way alkuña wa am tar naa taw nañ alayhim seen kaw mataran taw ab doj fa am fanfur xoolal ka kayfa kaan naka la nekkee aqibatul mujrimina mujj ak kàccoor yi xam nga buñ toogee ba léegi ñu naan góor jigéen dañ ko war a criminaliser ba ko yàlla criminaliser dafa yàgg yàllaa ko njëkk a lu ko waral tudd na ko ñaari yoon gis nga fii ma maanaam fanzur kayfa kaana aqibatul mujrimina inna ursilna ila qawmin mujrimina kon kay ba ko yàlla defee maanaam atteb jur mu yàgg na waruñu woon a toog ba léegi sax ñu ne dañ ko war a criminaliser déedéet ba ko yàlla waxee yàgg na ku ko def rek dëggal nga atteb yàlla ku ko def rek dëggal nga alquran kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax donte am na ñuy wax ne loi baa ngi fi woon kon nañ ko appliquer damay wax na ñun africains yi amuñu problème mu loi suñ problème mooy problème mu appliqué loi la ñu am foofu la problème bi nekk yonent bi li mu fi nekk yëpp juróomi loi rek la tëral juróomi loi rek la àdduna bi yëpp xam naa juróomi loi yooyu mu tëral nag xaju fi ndax asan nag may wax ne waxtu wi jeex na tàkk mais juróomi loi rek la yonent bi tëraloon te ñun te ñun tey suñu réewi Afrique li am ci ay loi kenn xamul niñ toll da ngay boo demee code pénal nangam ak nangam tudd ko waaye fekk moom alquran moom juróomi loi rek juróomi loi rek la yonent bi tëral mu defar àdduna bi yëpp loi bii dafa ñëw di régler bakkan loi bii di ñëw di régler der loi bii ñëw di régler xel loi bii ñëw di régler alal loi bii ñëw di régler pas-pas muy ngëm kenn warta agressé maanaam pas-pasam nit juróom yi rek la yonent bi tëral àdduna bi yëpp jàkk waaye loolu xam naa du fi xaj bu ngeen ma toppee xam naa suba ci waxtu yi insha allah ñu yegsi ci yàlla yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir xam naa tey nag ay doomi daara rek ñoo nekk ci euh, palaato bi tabaarakallaahu xam naa ki ñu ciy njëkk a tudd rek mooy sëriñ fàllu sànq mii toog jugal taxaw concours bi ngeen doon dégg muy concours mbindam alquran nga xam ne moo tax ñun ñu jot ci alquran te moo tax alquran des fi sëriñ fàllu sànq mii moo ko gañee tàccu leen ko waay wala barke leen ko <laughs> jar na ko jéggalu jàkk waaw waaw waaw tàccoo mbégte rek la mbégte rekk la yal na yàlla barkeel la wàccee barkeeb alquran ci sa kaw yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def dëgg waaw góor moom moo ko gañee mbindam mi ngeen di gis na de moom mbindam mi ngeen di gis na de xam ngeen ne mbind mi macha allah boo demoon màkka pour nga gis ku mën a bind mbind mu gën a rafet lii dana jafe bu dul machine foo mënoon dem ci àdduna bi mbind mu gën a rafet lii dana jafe nag kii moo gañe mbind mi jërëjëf yal na yàlla barkeel la tabaarakallaahu ñu ngi sant alaaji alaaji sëriñ sekk mi nga xam ne moo organisé tamit concours bi ñaanal ko yàlla yàlla yokk fanam yàlla yokku wéram yàlla yokk jàmmam yàlla bëril ay kemam tamit ci daara ji bañ mën a taxawee daara ji ndax wax dëgg yàlla loolu sagu daara ji la bu mag a mag sëriñ Mbàkke mi ngi nii toog moom tamit tabaarakallaahu di doomu daara ànd ci ñëw fekk si Mouhamad Mouhamadan Mouhamadan Dieng moom miin ngeen ko ci tele bi lu ci bëri tabaarakallaahu mooy ñëw di wax de di fi def palaato yu ama am solo di boroom xam-xam moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm Serigne Mara Niass ngi nii toog di doomu xalifa bu tedd bi Mawlaay Haaji Ibrahima maam xalifa tamit di borom xam-xam mi ngi nii tey fekkee jotaay bi sëriñ maam As Ndiaye mi ngi nii di borom xam-xam mu ci daara la am tamit moom mi ngi nii toog soxna Mariam Fall mi ngi fi Mansour Seck ñi ma jox ne moom tamit mi ngi fi Omar Ndiaye bàyyi ko ba tayam mbayeen mi ngi fi Ousmane Diop mi nga xam ne mooy tasaare waxtaan moom tamit mi ngi fi Ahmadou Badiane bàyyi ko ba jàmm gën mi ngi fi soxna nday nday jaane mi ngi fi soxna njaay tamit soose di doomi alaaji soose Ndiaye mu ngeen xam moom tamit mi ngi ci palaato bi Anas Diaw a ngi ko fiy gis Ibrahima Ndiaye tabaarakallaahu di suñu njaatige ca Italie di njaatige Sidi Mouhamadul Amin moom tamit gis naa ci xaaji Ousmane ñaan bàyyi ko ba Saama Njaayeen ñoom tamit ñu ngi fi fekkee si jotaay bi yal na yàlla defal ñu tawfiq ak taysir asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا